gannaaw ba nu sante sunu boroom subhaanahu wa taala julli ci yonenteem ba seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi bal xaq ñépp tey balu xaq ñépp yàlla nanu yàlla boole jéggal di ndokkeel jullit yépp ci weer wi nga xam ne noo ngi ko doon séentu di ko yàkkawleku ba yàlla indi ko fekk nu fi noo ngi ci sant yàlla bu baax cantuk xol ak goog làmmiñ ak goog jëf di ñaan sunu boroom nii munu may nu fekke ko mu may nu ak tal ak wér ba nu mën koo joxe ni mu ko santaanee te yàlla nañ ko tase ak ngërëmam koor nag daara la daara la juy tàggat tàggate ci farlu farlu gi nag yomb naa xam lool ndax kenn ku nekk bu fekkee mi ngi woor yëg na ne doxinam ci bis bi am nag soppiku la ci jëkk soppiku mooy mën nay jóg ci guddi gi waxtu yoo xam ne dawu ko jóg te boole na ko ci waajtaayam ba noppi ne waxtu sangam moom bu jotee dana jóg bu dee xadd mu xadd bu xëddutit yam ca gàll boppam day fas yéene dara du ca naax saay su fekkee bëgg na lu baax te bokk yi foofu it saa su nañu di ko fàttali gis ngeen nodd gu jëkk nodd gu jëkk ku ko dégg xëcc sa malaan wala nga ñoddiwaat sa tàngaay gàttum xel nga la ci gën a fës rek mooy kooku nga dégg muy nodd soo xoolee fa mu bàyyi ko ak lim daj ci yoon ba muy laata àgg te tàmbalee gu ta am ci Sénégal nag ñuy jox noddukat yi ay daama yu leen di yóbbu di leen delloo si daanaka ñi ñu koy bàyyeel dañuy jàpp ne ñu jëmul fenn rek lañ te moo ne mënuñ si leen a ñàkk moo tax yi ñuy geesoo it war a si leen cay geesu léeg-léeg moo tax ku dégg nodd googu xamal ne am na ku bàyyi lu bari ngir nodd te am na ñooñ di wax ca kaw seen dëkkanu leen dégg sax dañ koy moytu waxaaliwuñ nodd nag ci waxtu woowu nga xam ne moom ñëpp lépp danaa ne selaw muy wax ca kaw loolu lu mat a dawal aw lu war a dawal yaram la moo tax koor dana soppi nit jàngal ko farlu ci di ko tàmbalee ci fajar gi njël ba bët set ba ba muy dog ba ba muy tëddaat ba ba muy yawwaat leen lu ci nekk wutal na ko waxtu wu mu koy def woo xam ne day mel ne koor a ko ko andil te yëg na ko ci bisam moo tax luy tàggat nit la ci farlu farlu ci daña lekk ak naan waaye lam cay jànge mooy fexe ba lu muy lekk ak naanati bu koor gi jàllee it mu xam lu mu doon ak fu mu jóge waaye ci koor it des na ca jànge yëg li nit ñi di yëg amul kenn ku amub sekkare wala mbuut muy jëfandikoo ci koor lu bokk rek ñi ko ñeneen ñi defe weesu wut xëy na ngam rek ba ngoon jot foofu ñépp ko niroole doonte nag ëppante nañ ci jom am na ñoo xam ne bu ñu wooree danañ fexe ba li si ñu bari di yëg bu ñu ko ci yëg ñoom ndax dañ koy teggil seen bopp mooy lan dañuy fanaana fo dañuy foog ba bët set toog di waxtaan ba xëdd julli suba tëdd ba tekku sax niwuñ amut koor de waaye lu bari raw na ko loo xam ne déwén doo nga la ko mën a amaat ci bis bi jàllee moo tax weeru farlu la yëg gi ci jullit bi war a yëg nag mooy ëllëg gi si biir ku ñëw ne ko sëriñ bi de tey jii moom la yàlla xam doy na mu xam ne xiif lu wér la ku ko wax rek ku dem ba wax ko rek wér la ndax moom jaar na ci waaye ci kenn yéem lu baax lu mu ci def lu bari ndax yonent baa ngi nii sallallahu alayhi wa sallam moom la yàlla tànn teg ko ci kanam ñépp waaye lu mu daan def bu koor gi ñëwee daf koy dool ndax lan fàggutu yàlla koo xam ne bokk yi suñu boroom nee na ko toppanteetu mag yow dara la weesu li ci kanam waxi noppi bu fekkee moo daan takk ndiggam di laxasaayu ci guddi gi te moo ne léeg-léeg du am lu mu reere de waaye du tee lam war a def lépp lay def léeg-léeg sax lenn ci waa këram ne ko xanaa danga sikki sàkk ci li yàlla ne jéggal na li weesu ak la ca kanam lépp mu ne ko ah kay gëm naa ko waaye dama koy sant dama ko cay sant la ma jàppoon nag ak fa ma jaaroon ba am njëgal googu du ma ko bàyyi moo tax bu weeru koor masaan ñëw it sayidna jibril alayhi salaam daana ñëw di jamoo moom alquran jamoo jamoo mooy mu wax ab aaya mu wax ab aaya ni ko dongoy daara daan defe bu jëkk tippoo robon sàngam ñu sëddal leen ko yàgg diw bu kii waxee bi kii wax be bu kii waxee be kay wax be baru bon ja ak ñuy tibb ci alxuraan ay barabi barab kon loolu lañ cay dégg rek mooy al weeru koor weeru jàng alxuraan la waaye weeru saraxe la ndax gannaaw bu dul koor it saraxe ma nga fam nekk bu koor ñëwee lu ci nit def yàlla daf ko koy fulal yàlla nañu yàlla déggloo waaye guddi koor it loolu ñu njëkk a wax taxu koo jóg fokk ne fojj di xoole di wax lu ñor ak lu ñorut di seetaan lu ñor ak lu ko jërut ba guddi gi jeex tàkk koor guddi ak bëccëg bëccëg bi mu woor ko guddi gi lum ci mën a def ci lu baax diggante julli ak jàng alquran ak fekke ji fi ñuy waxtaanee lu baax loolu moom kum cay nelaw mën naa rafet njort ci ne mi ngi woor bëccëg bi ak guddi gi ci ni koor tëdde moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu mosaan jóg guddi waxaalewuñu koor waaye ni lii daal ñu bari ci ak nite jóg soxla waajtaay saa bu ko mosaan def daana jàpp julli ñaari rakkaa yu yem ndax day bañ nit ñi xam ko ci moom di ko ci roy muy metti waaye mus musu ko ñàkk def kon boog loolu la muy tegtale mooy jullit bu ko man am na ci yenn yenn koñ jàkka yoo xam ne bu nit ñi ne baasin yàlla rek ñoom ñu ne fojjat ci moo ne ay ndaw lañ yàlla na yàlla def mag bu amu ñam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ku yee ak njabootam guddi rawatina weeru koor lum néew néew mu jiite ñu julli ñaar rakk wala mu julli ñaar ne ay ca leen ku man julli ca néegam bañ tàmm ko ñi yàlla di lim tàmbalee ko ci boo demee ci suratul ahzab inna al muslimina wal muslimati wal muminina wal muminati wal qanitina wal qanitat ba àgg ci wa dhakirina allaha kathiran wa dhakirat aadda allahu lahum maghfiratan wa ajran azima yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kuy faral di jóg di yee waa këram rawatina weeru koor donte ñaari rakk la ñuy julli sëlmali bu ko bàyyiwut yàlla mën na ko limaale ci azakirina allaha kathiran bu dee góor ñi wa zakiraat bu dee jigéen daan na ñoom ñooñu nag kuréel yooyu mu lim ñoom ñëpp te azakirina allaha kathiran wa zakiraat bokk ci yàlla waajalal na leen ak njëggalam ak yool bu mag yàlla na nu ci yàlla boole moo tax koor ak lim àndal ci ay defiin mata ràññee mata sonne ci laaj ku dem ba xam ko nag kuy dundal bëccëg yi la ak guddi ci def lu baax bu ca neenal wenn waxtu loolu it dañ ciy dànkaafuwaale ñi nga xam ne dañ naan laaj rek duñ faste xànc ak moroom ma ci bëccëgu weeru koor di bëgg a rey nit ñi ak tifli ak jàmbat ak sëlmu gu dul jeex ak tooyal seen bopp ak jàmbat tàngoor wi waxaale wuñ nag di lekk ci mbedd mi moom loolu moom bokk yi lu ñu ñaawe kenn mus koo gis moom te moo ne am na ab yahud ñi ne góor la ñi ne jigéen la daa mas a xaj ji doomam rek di doon lekk ci bëccëgu weeru koor ci Madina ne ko xanaa xamul ñi dañoo war ngay lekk ci bari daal di koy pes mu daw dugg ci kër gi kooka ca la yàlla jaar jéggal ko ba mu faatoo yonent bi da ko limaale ci ñi nga xam ne nga aljanna ndax lan warumaalum bëccëgu weeru koor rek kenn ku nekk moo xam lu ko tee waaw moo ko xam moo ko yàlla ndax kat bokk yi lu coow li bari bari kenn wóorulut kenn kenn jillulut kenn kenn ku nekk nag danañ ko lalal mbaggum day joram mu féete suuf mbaggum càmmoñam féete kaw ñu sotti suuf wet yépp naaj wu tàng di ko fa fekk ab sedd di ko fa fekk te moo ne ñaar yooyu benn bu ci ne ba muy dund amoon na ca taxe bu naaj wu tàngee mu toog ci kar bu seddee mu sàngu waaye foofa lañ koy tàllal mën a ñaw moom képp bokk yi tëray boobu mat nay waajal tëray boobu lu mat di waajal la mag ñi daanañ ko jàngale ci ne lépp loo xam ne buñ ko defee ci sa bët du la yàqalub gis mën nañ koo nangu waaye lépp loo xam ne lu mu tuuti tuuti bu nekkee sa bët dootoo gis bu ko fa yóbbaale yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nag nee na ku dog ci bëccëgu weeru koor ci lu dul ngant wala ruxsa ngant mooy lu dal ci yaramu nit ki ba mënatu mu dog moo koy tey waaye daa ngant te ngant yooyu bokk yi nee nañ fii bëkk démb rek charia al islamiyya mooy tëral ni lii mooy ngant ak lii ak laa ku dog ci bëccëgu weeru koor ci dul ngant toog ba mu neex ko rek mu ne tàng na wala liikata laa su wooroon li des ci àdduna sépp li des ci àdduna lépp it du tax mu fay bis boobee ndax mag ñi daan jàngale fekk bu jëkk daa nañu wax ne lépp ci bëccëgu weeru koor bis noo ko mën a fayee ni ngi mel ne ñu lebal la wurus nga fas yéenee faye ab jox bis ko bis bi ci weeru koor gi moom jàll na te du ñëwaat la ku dog ci weeru koor te amul ngant ngant loo xam ne sharia la ñuy laaj luy ngant luy tax a dog ci weeru koor mu leeral ko nee na su ko bëggoon a fay woor bis yi des ci àdduna yëpp du tax mu mën koo fay waaye ku woor ci ku dog ci weeru koor ci lu dul ruxsa ruxsa ruxsa mooy loo xam ne yàllaa ko maye ngant mooy bi ma jëkk wax mooy su muy waxee aaya yim farataale ko faman shahida minkum shahra falyasumhu wa man kaana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin uxra wa man kaana maridan mooy ku am ngànt yaramam moo ko mënta def yaramam moo ko mënut moom ci boppam mu xam ko wala ab fajkat bu ragal yàlla wala sax xamut lu yàlla waaye yaram dong dong dong la xam te fonk métier ne ko yow mii daal mënoo woor su boobaa am na ngant su ngant la tegg koo fekk koor ga jàll na mu fay ruxsa bi mooy aw ala safarin wala muy tukki te tukki ku ne xam na li ci nekk ci ay coono te yuridu llahu bikumul yusra wala yuridu bikum al usra yàlla du sant nit lu mu mënta def lu mu set ba di ko teg nit ki lu man la loolu am na lu ci feeñ bu yàggutoo rek dafa am koo xam ne wa man kaana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin uxar mu jógee fii di tukki néeg ba tëkkusaan mu ngi yendoo koor gonte fii jëm Amérique xam nga ne ku jógee fii takkusaan di dem Amérique day dab jant bi ci yoon wi daanaka di duggaat ci suba mu woor loo xam ne ëpp na fuuf fukki wax doog yaar di laaj ba xam day dog wala ñu ne ko mënoo dog moom fekk yaa ngi gis jant waaye aw ala safarin fa iddatu min ayamin uxar bu fas yéene da ngaa fas yéene tukki xamoo ko ngay àgg nga dog ba àgg soo demee ba toog bu la fa kor yi fekkee ba nga woori nga fay foofu lañ fay dégge mooy bu kenn jëfe coobareem lu ci nekk bind nañ ko mën a wét leer nañ moo tax ruxsa boobu suñu boroom joxe ne ku ne ci tukki tukki bu dagan waxuñu tukki boo xam ne day dem ci bakkanam dong nag tukki bu dagan bu dagan boo xam ne muy yiwut yàlla muy jiwut yàlla moo tax muy wax yàlla moom sax benn genn wet gi lay wax rek ga ca ga ca des moom du wax jëm te da koy jëlale lu ci ne am na ñaari wet su ko defee bokk yi yahudiya boobu wala yahud boobu nga xam ne doomam da koo xaaj ba loxoom laal ko ne ko warmaalal ñu woor loolu jàngat bu rëy ngi fi kon bokk ginnaaw kenn ku nekk moo xam ngantam ba wóorul na warmaal ñi nga xam ne dañoo woor ñoom te ne ci mbedd bi ndax léeg-léeg nit juubu te fekk dañ koo juubuloo dañoo lal njaay mi ci mbedd mi mu neex a gis lool mu gis gaaya di xar ak a xolli mu fàtte ko na ca pelam ku ngeen yaakaar moo ko yanu yanu na tuuti de li mel sax bëriwul ndax day fay dong day jàppale ca des fay waaye ña tax mu mu dog lu rëy topp na leen loo xam ne doon wàcc moom te bokk yi suñu borom dafa maandu dafa maandu gis nañ fi bëkk démb ab àtte rek nit ak daaraam ñu ne borom daara ji di moom daara ji ci néeg sàngam lañ koy yóbbu waaye dongo yi it ci néeg sàngam lañ leen di yóbbu tàggale leen fa saasa kon bokk bokk yi foofu njàngal mu réy ngi ndekete yoo kon léeg-léeg nga ne ay ca leen xaaj ñu góorgóorlu ci liggéey baax na ci léeg-léeg nga ne déetit ñu taxaw baax na ci su ko defee su weeru koor ñëwee weeru koor du lekk ak naan kese rek bañ bàyyi lekk bàyyi naan dong waaye teggin yim làmbool ku wóorut it war na koo sédd ñi nga xam ne dañoo woor ñoom nu mu leen koy sédde mooy su bëggee lekk na dem dugg ci ab néeg làqu ku ne xam ne ni koor góor ak jigéen a koy def waaye léeg-léeg nga gis ci jigéen ñoo xam ne ñu dégg diine lañ su leen mbir dabee ba mënuñoo woor su ngoonee doo ko xam ci ñoom te mën naa am sax nga teg bët ci seen néeg ñuy mos dara waaye dañu koy nëbba nëbb ba nga xam ne kenn du ko gis loolee mooy yoon wa te moo ne yàlla lañ ko teggil boppam ndax ngant lañ am moo tax yàlla lu ci jëm du ay caaxaan kaf jëmu ca ab sañ-sañ jëmu ca bokk yi bi ñuy bi yàlla di bi ñuy bi ñuy lor ay yonent di faat seen bakkan kenn mënut a wax ne yàlla nekk foon yàlla nga fi woon bi ñuy faat ay saxaaba yu mag ci kanam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lañ ko defee yàlla ngi fi woon bi suñu borom di jël ku jege yonent bi ci bokk di ko limaale si ñuy jëm sawara yonent baa ngi fi ne xoj ni am nopp ne jomm ni am nopp sallallahu alayhi wa sallam bàyyi taxam boobee kay ba mu ko naan waxal laa ilaha illallah sa mbir jàkk yéene woon na ko mu dem aljanna mu ne rus na koo wax fu mu jëm sawara beneen baayam boo xam ne daa fësal ak mbañeelam moom kee moom ak cofeelam ci yonent bi la doon fësal ba yonent bi yéene ko jàmm kee moom ak mbañeelam gu wér la doon yéene yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ba aaya wàcc ci moom tabbat yada abi lahabin wa tab ma agna anhu maaluhu wa ma kasab sa yasla naaran data lahab kooku bàyyi yonent bi sallallahu alayhi wa sallama yàlla daf ko ne taxee tàggale ko yonent bi ñu jëm sawara sa yasla naaran data lahab sawara suy tàkk moom wa mraatuhu xamalatul xatab fii jiidiha xablum min masad loolu lay teg tuskare ñeel na abi lahab abi lahab ku ne xam na ne tàkk-tàkk jurut te kenn juru ko waaye ki nar a taqoo ëllëg ak tàkk-tàkk lay teg ki nar a taqoo ëllëg ak tàngooru metti buy tàkk yal nañ ci yàlla musal moo tax bokk yi suñu boroom amul ab yëg-yëg ci diggante kenn ak kenn yëg-yëg ba muy am ci diggante nit daal mooy ngeen bokk pas-pas bi bokk nu ngeen koy defe bokk fu ngeen jóge fas yéene bokk fu ngeen jëm su boobaa lu tànk yi sore sore ak lu jéego yu yàgg yàgg man ngeen a àgg xam fa ngeen di tase yàlla na ko yàlla déggloo weeru koor nga noonu ñi nga xam ne nag am nañ dimbal ñoom ba di ko taxawe nañ xam ne wooru weeru koor it du bàyyi lekk ak naan kese am na ñoo xam ne woor nañu waaye teewul seen làmmiñ yi koor gi mënalu ko dara lu leen neex a wax ca am na ñoo xam ne danañ ca jëw danañ ca rambaaj danañ ca kàcc danañ ca feñ fen danañ ca duur kàcc ak fen ak duur nag du benn kàcc mooy yokk ay wax fen mooy sos ay wax duur nag mooy tuumaal nit ki loo xam ne du moom loolu lépp ci ay làmmiñ lañ mën na sox ko ci làmmiñ am na ñoo xam ne koor yàqalu leen ko am na ñoo xam ne seen gët yi moom fas nañ yéene du tegg ko ci télévision bi ba jant bi so moom ndax dañuy dàq koor wax nañ dëgg dañ koy dàq te télévision ñaare ay gët dalay wan di la dégg di la ngay dégg moo tax kenn ku nekk war nay xool bu wooree li muy xool ci ay gëtam ak li muy déglu ci ay noppam ndax léeg-léeg mu xool loo xam ne waru ko woon a xool sax ba mu war a gudd waxantuma bi ñu wooree wala mu di ko dégg su ko defee loolu daf koy daal tàmbalee dugal ci bunt bi nga xam ne ku ci dugg ñu tàmbalee ko bindal bàkkaar yàlla ñu ci yàlla musal moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ku bàyyi wut wax wax ju wax caaxaan ak di ko def waxi caaxaan nag boo ko déggee ki mu koy waxal mu di ko déglu cala waaye ki koy tontu it cala waaye ki xool ba xam nu mu demee cala waaye kiy dem ak tànkam di wëri fa mu xewe woon it cala bokk nee na ku bàyyiwul wax ay caaxaan ak di ko def doonte daa màng weer wi yëpp yàlla amul soxla ci ña bàyyi gi bàyyi lekk ak naan sëñ bu mag bi nag bind na ci masalikul jinaan ne bari na ko woor ba ngoor jot wala bañ dog ba kori jot te amut ca koor ga dara lu dul ab xiif kese kese kese dal ne koor mooy ki ko nar a def day woorloo cëram yépp ñii nga xam ne fexe na ba du tibb sax du góox ci gémmiñam muy dem ci biiram mu fexe ba cër yépp kenn ku ci nekk jàpp boppam ci lu dul noona bañ a xool lu xaraam bañ caa dox jëm bañ koo déglu bañ koo wax bañ koo xalaat sax sax moo tax ñu bare nga ciy wax waaye nag ci lu mel ne télévision yeeg théâtre yu ñàkk war ma yeeg tayal loo gi ñu tayal ci diineeg lépp muy ree yi kese kese nañ xam ne reeloo nit du métier lu ñàkk maanaa la ndax nit ki kus-kusi ba ngoon jot nga reeloo ko ba mu fàtte koor gi ba fàtte koor gi fàtte na ko ndax yi ñu ciy wane ñi ngi ciy wane yoo xam ne daal ñu bari xa gis nañ ko ba tàyyi waaye bu ko kenn seetaanu tut kenn duutu ko duutu sawar ci di ko wane ndax ñi koy wane daa am ñu leen di fay ñu di ko wane te bokk yi foofu it li ci li ci gën a yéeme mooy ñi ngi wane yooyu ci seen télévision yi dañ cey jaay dañ cey dañ ciy wut xaalis ndax bala caa benn dox dañ naan ku bëgg ñu jaayal la sam jaay ci biir bala ñoo wane loolu wala bu ñu ko wanee woon na nga ñëw fay nangam su ko defee bu ñu nee wax sangam lañ koy teg balañ caa àgg ñu jaay lu bari léegi nag ñu wax la ci ci sila ci marchandise loo xam ne bala nga am jàmm da nga ko wut te mën naa bañ a demee noonu sax bu ko defee yi cay daje bari lool. mooy fi sëriñ bu mag bi di wax ne fa rubba saa'imin maa aljamaa laysa lahu fihi siwa almajaa bari na ko woor ba wori wala mu woor ba dog te bis ba mu woor ba wori ba dog wala weer wa mu woor ba wori bu ñu wàññee calculer lañ ko cay fay mooy xiifoon nga mar rek kese dal ne fa sawmu an yasuuma kullu udwi an kulli ma yufdi fatan bi sahwi koor dëgg-dëgg mooy cër yépp woor ci lan lépp luy tax luy tax koor war a dog dan ne amsik an nadari l xaraam téel jàppal moyal say gët ba bul ca xool mukk lu xaraam wal mashi wa sam'i ma al kalaam ak dox jëm ci fu ñu wootee lu xaraam wala woote wuñ ko waaye yaa koy doxee rek yow ci sa bopp nettali ma ko kenn wala nga di ko déglu say nopp waxante wuñ nag nga di ca tàbbal sa kàddu boo koy tàbbal sa kàddu ci lu nit wax ba noppi commentaire ca la commenté bind ci say loxo ca la bokk wa kulli fikratin radiyatin kama amsakta an aklin wa shurbin wa dina waaye bépp xalaat boo xam ne it jëmul kër xalaat bu jëmul kër na nga ko génne ki sam xel moo xam muy fas ci nit ki loo war ta fas wala nga di ko ko xoole wala nga di ngay dem sax ba di ko joxe ñafar nee na na nga ko moytu ni nga moytoo lekk ak naan ni di la gis nga di ko moytu ci sa néeg yàlla di la gis yàlla na yàlla defal dégg ak topp tañ fàttali ne kenn wóorulu kenn kenn jullilu kenn kenn ku nekk bu tiimee ndab di cibb di sax la muy saf ci gémmiñam ba moom koy dugal ci biiram mu di ko jariñ moom dong dong dong la amal jariñ moo tax li ñu fi indee dara gënte wóor nekk ca te sax ci suñ kem kattan muy saa bu ndigalul suñu borom accès kenn bañ la caa man rek da nga bañ caa sàkk pexe ndax ëllëg gën jëm pexe amu fa njariñ kenn ku nekk day tàllal rek ñu teg ko ci loxoom bu ñu xoolee jiw laa àndal jiw mooy sama mbokk amul njariñ jël nañ abu lahab moom ma wax léegi dik ko sawara ëllëg te moo bàyyi yeneen ci bee bokk lépp sallallahu alayhi wa sallam buñ bokkul lépp ñoo bokk benn baay moom waaye jëlaat nañ keneen koo xam ne moom waxuñu bokk kese-kese waaye dafa am fu mu jaar ak moom ci njekk daf koo yar ba faatu ñëwee yonent bi xam li koy yoot dana ko wàññikul wàññiku gi du ay tànk yooyu dox jëm fenn ne la ilaha illa allah muhammadun rasulullah kese léeg-léeg fële nga dëgmal wuti feneen moom mu bañ yàlla ne ko da ngaa defee ne ku la neex mu mel na la neexam wala loo yéene nit mu mën ko mu mën koo dal déedéet bu dee ci lu baax innaka laa tahdi man ahbabta innaka laa tahdi man ahbabta doonu ne koo yéene lu baax rek mu jot ci waaye doonul ne it loo yéene nit ab safaani man ko dal walaw yuajjilu llahu linnaasi charra isticjaalahum bilxayri la qudiya ilayhim wa yadcu linsaanu bicharri duaahu bilxayr kon boog koor gaa ngi nii yàlla na nu yàlla dimbali ba ñu mën koo jooxe nañ ñu ko sante te yàlla dong tax yàlla rek tax yàlla daal tax woote yi bari na lool boobu yàlla rek moo ca mata wuy ji yaa qawmana ajibu daa'iya allahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dunubikum wa yujirkum min adabin alim wa man la yujib daa'iya allahi fa laysa bi mu'jizin fi l ard wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dalalin mubin yaghfiru llahu lana wa lakum wa li saa'iri lmuslimina amin